réunion de Mbour parce que xam waxee ba tey su convoqué réunion après sa xaar en tant que maire. sama personnalité la wax dëgg yàlla tey jii benn ma wowul du mën naa dugg réunion ñu ne su da mbir daree sama kaw population je pour justifier quoi que ce ñëw massawu nit ñi leen dal maa njëkk ni commissaire léegi nañu ñaan. ñu arrêté ce massacre. massacre la de massacre la donc man je parle d'abord en tant que musulman en tant que frère en tant que père de famille. parce que je rentre chez moi je dors il y a des gens qui vont pas dormir C'est rek la du mais je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cela je n'avais pas l'information et si je l'avais ni ma lay ni laa lay je ne la yëg mais quand même di nga xam ni yëg naa mbir loolu rek moo may indi. mais fu mu ne la mooy tardé régularisation bi. man la ma fekk man laa wax. Mhm. kii a ngi toog première réunion bi Fodou Fall. Mhm. président man la jox dossier mburkaat yi maa ko yoroon di ko tekki. Mhm. benn par benn. la ñu retenir ja réunion ba dañoo ni moom. toj kër puus nit teg fa keneen. du yoon rafetul. ñu ni comme président li muy déclassé dina ëpp ay six cent hectares. ñi jot a dëkk dañ fexe ba mbedd yi lépp génn ña fa nekk ñu baleen fa léegi ñi nga xam ne maintenant dañoo amoon ay titre d' attribution li ñu ëpp li président di déclassé bu ñu ko defaree ñu jël ñooñu yóbbu leen foofu comme priorité mais ñi jot a dëkk ñu wutal leen kayit parce que le mot régularisation a son sens on régularise que ce qui est irrégulier. Donc, dans le sens de cette régularisation, Ben Réunion assistant. Après, le préfet, il les partir. Quand il est parti, je suis resté. Je sais les mémoires. C'est Réunion, il me dit quelqu'un m'a Parce que moi, j'ai dépensé les mots de Donc, la gomme, je devais au nom, banque sur Et s'ils me disent que Wi-Fi extension, beaucoup de communes, je constate. Mais je dis que c'est des populations de Thiès qui ont été touchées. Même pour une commune, ils ont été touchés. Donc, en tant que musulman, en tant que croyant, déplacé ñu compétir ak ñoom seen loolu moo ma indi maintenant aussi loo gis rek am na pexe ñu ngi def am na ñoo xam dañ leen a sant te gendarme yi kenn mënu leen a condamné mhm. seen liggéey la ñuy def mais tamit ñu nit mën na am yeneen yoon yu ñu mën a jaar ah. wax ak ay kilifa ne leen la gis fee su continuer mën na jur léegi lii ñu ngi ñaan ñu taxaw